sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey bi xidmatin qad baayahu aljalila inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu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 wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki lislaam ji yëpp nuyu jullit di nuyoo bu tedd di ñaan sunu borom subhaanahu tabaaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam ñu nekkoon nag ci suñu jataayal yóbbalum ndaw ñi mooy jataayal xam-xam di jataayal jàngale waaye di jataayal fàttalikonte comme niñ ko baaxoo di waxee sunu bàyyee xel nag sunu jataay bii weesu ñu ngi doon jàngale ci doomu adama bi teggin yi mu war a am ci sakku xam-xam waaye nag farlu gim war a am ci sàkku xam-xam muy sàrti xam-xam yi ak nan la mën a def ba am xam-xam ci yoon wam war a jaar te muy yoon woo xam te ni bu toppee rek faw dina am xam-xam kon tey ñu tàmbalee sunu buntab tey muy bunt bi jàngale ci noon yi nga xam te ni sunu borom daf koo dénk wala daf koo booleeg doomu adama bi nan la nit ki war a noon yooye moo tax mu ne fas dun lii ab bunt la fil ahdaa i ci noon yi al arbaxati ñadi ñeent yaa ayyuha subbaanu yéen waxambaane yi jaahidu na ngeen jihaad ayda ak ay noon arbaxatan ya di ñeent li kay tafuusu ngir ngeen texe wala ngir ngen am bil huda ci ak njub kon bunt bi dafay jàngale nan ngeen di moytoo ñeenti noon yi nga xam te ni suñu boroom daf ko booleeg doomu aadama bi ñu taxoo ak ñoom noonu ngay def ba mucc ci ñoom mu ne kon yow waxambaane mi na nga jihaat na nga xeex noon yooyu te noon yooyu ñeenti noon lañu bis boo xeexee ñoom de di am ak njub ñeenti noon yooyu nag lay bëgg wax moo tax ma naan nafsun bakkan wa dunyan ak àdduna summa saytaanun topp tey saytaane allaxiin kadi ku ñu rëbb téere bi nag mi ngi bind nafsan wa dunyan summa saytaanan laxin mahal hawa ànd ak bànneex ah ixatan aji gàllankoore lañu anil mohin walif yàlla mi aji dimbali ji mu ne kon ñeenti noon yooyu kat ñoo nekk bakkan teg ci àdduna teg ci seytaane teg ci bànneexu bakkan mu ne ñeent yooyu mooy ñeenti noon yi nga xam te ni nit ku nekk dafa taqoo ak yow te muy noon yoo xam te ni kat nit ku nekk war na koo bàyyi xel bu baax ci digganteem ak boroomam te xam ne bu sàgganee ba ñu mën ko rek mooy yàqal nañ ko ak texeem ci àdduna ak àllaaxira waaye bu xeexeek ñoom ba man leen nag dina ci jëlee ak texe ci àdduna am ci ak texe ci àllaaxira kon noonu yooyu nag doomu aadama bu ne war ne bàyyi xel te mooy bakkan bakkan bii la suñu jox war ngaa bàyyi xel na sam noonu la ndax li ko neex mooy li nga xam ne moo lay lor àdduna yi nga nekk di ci dundkat na nga bàyyi xel ne sam noon la waaye nag saytaane mi nga xam te suñu borom daf ko bind boole koog yow tamit na nga xam ne sam noonu noonu doon doomu aadama yëpp la ci dëppi ba ko suñu borom génnee ca sawara ca àjjana mu nekk nitu sawara ci sunu maamu aadama la tàmbalee lu yàqal doomu aadama rekk la bëgg lu koy taxa dem ci këru safaan wa rek la bëgg kon sab noon la ak bànneex maanaam sa bakkan bi li muy bëgg mooy bànneex bànneex tamit sam noon la mu ne kon ñeent yooyu na nga war a xeex ak ngir am texe tey ak ak ëllëg ak ne li kulli jinun ñeel leen képp ci ñoom nag ab kaso mu ne kenn ku nekk ci ñoom nag am na ab kaso wasilaaxun ak ngànnaay mu goog def na ko xam fa addi xilu nanga leen tàbbal ca kaso ya wa kassiru ak ngay damm ngànnaay ya fa taslamu kon danga mucc mu ne nag kenn ku nekk ci ñoom am na kaso boo xam ni boo ko ci dugalee rek yow mucc nga waaye ñoom am yar nañ ay ngànnaay yoo xam te ni da nga profité damm ngànnaay yooyee ndax ngànnaay yooyee ci lañ lay mën a gañee ci lañ lañ mën a daanee waaye boo fexe ba damm ngànnaay yooyu nag da nga mucc ci ñoom ngànnaay yooyu nag lay bëgg a pexe yooyu mu ne fan nafsu bakkan kon ci bakkan la jëkke mu ne kon fan nafsu bakkan tus janu def na ko tëj bil jooxe ci ak xiif attaawili bay aji gudd wama laha déet di ko ñeel xaydun ab jéng wala ab tënk yoxolanu gog dees na ko xam si waaxu budul moom budul moom xiif amma silaahuha ndaal ngànnaayam moom xiif allazi nga nga xam te ni xadd tam naxu bari waana mu tere bi moom al mutiixa aji topp ja min hudan ci njub fa si baaxoon mooy regg mooy regg mu ne da nga xam ne nag bakkan lan mooy ab kasoom fan nga ko mën a tëj ba ba mucc ci moom mel na da nga xam ne lu dara lu dul xiif bu gudd xiif bu yàgg rek bakkan moom xiif bu yàgg mooy ab kasoom boo ko xiifalee rek mooy gañe ngi ko waaye rek wax xiif bu xam te nii te lay lor waaye xiif gu diggu dóomu lañu wax kon ni la ko waxee woon ca tàmbalima ba xiif gu digg dóomu fexeel ba booy lekk bañ lekk ba regg waaye fexeel ba it balaa ngaa lekkat bàyyi ba xiif a xiif doo lekk loolu moom dafa baax sax ci ak wér gu may ak wér gu te xiif nag mooy kaso bi nga xam ci nga mën a tëj sa bakkan ba sa bakkan nga mucc ci moom boo xiifalee mucc nga ci moom ndax moom rek xiif rek moo mën ci moom dara waaw mu ne su tëj mu ne su koo lu dut xiif kon bakkan moom xiif rek mu ne lan mooy ngànnaayam nag mu ne ngànnaayal bakkan ji nga xam te ni mën na la koo loree mooy regg loolu bu sa biir di fees muy dëkk saxoo regg rek sa biir di fees rek xamal ne moom gañe na la ngànnaayam gim la mën a gañee mooy regg regg rek mën a gañee mooy biir di fees boo ko defee rek gàllankoor na la ba dina la teree jaam yàlla lay lay tayeeloo kon ngànnaayam mooy regg kon wattandikul regg wattandikul regg booy regg rek foo toll rek xamal xam sa bakkan moom gañe na la moom bakkan la njëkki bakkan loolu mooy ab kasoom xiif mooy ab kasoom bu gudd te yàgg ak ngànnaayam moom gi nga xam te ni moom la la mën a daanee mooy ngay régg biir di fees rek mooy sa bakkan daane na la gañe na la kon loolu lu xel kon day wàcce suñuy rek ci fii ñoom teg foofu suñu baaraam ba suñu jotaay bii ñu yeggale ko leeral ko ko defee bunt boobu daal jeex kon ñu ñaanal képp koo xam te ne mi ngi topp jotaayal yóbbulu ndaw ñi ci Murid TV di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal gudd fan ak wér ak gudd ko rafet képp koo xam ne mi ngi teewlu suñu jotaay di déglu suñu kàddu moo nekk ci bitim réew ak ñu nekk ca biir réew ma ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ñëpp rek ñu ne di ñaan jàmm ak tawfeex xewal yu bari tabarkeer sutura tey ak ëllëg yàlla na suñu borom dafa dégg déggee gën a ak topp ca topp yi gën a kawe nga xam te mooy topp lu am njariñ dégg lu am njariñ in uridu illa al islaaha ma sataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey